mbokk internautes yi maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax a baax ni ngeen di àndee saa su ne ak programme mu 5 TV ba ñëwaat ak yéen rek ci seen série Soie ñu leen doon defal décortique bi fan yi yëpp nag ñu xawoon ko pause mu mel ni nag waa Soleil ñoom ñoo ko arrêté woon ci weeru koor bi mais reprendre nañu ko ba tax rek ñu ñëwaat ak épisode 45 bi ñu door ko ak séquence bu njëkk bi dabi nag moom ñëw na rek ngir waxtaan ak ki nga xam ni moo di baron ngir rek rek xamal ko ni ko li mu def lu ñaaw la ndax sacrifier doomu aadama ngir rek yow sa bonheuru bopp loolu nekkul loo xam rek lu baax la te lu waaye def si lu bon rek tôt ou tard di nga ko regretter mu mel ni nag dabi ni ñu ko gisee nekk na rek koo xam ni xale la waaye ku am xel la te it ku xam àdduna la ba tax nag lépp loo xam lu ñaaw la moom doo ko ci gis mbaa nga dégg ko ca te yi fu mu toll rek muy si côté ak jabaram muy si côté ak ak xaritam muy ci côté mag fa muy liggéeye fu mu ci mënti nekk rek maturité lay uh, wane waaye itam di wane ne responsable la uh, te yéen nag di doxee li nga xam ni uh, noonee la ko yàlla bëggee ñu jàll ci moom ba tey dabi moom nag gis nañu ni li muy wane mooy rek xarit dëgg ni mu war a taxawoo moroomu xaritam ba tax rek xamal na ki nga xam ni moo di baron ni ko rek fu mu mënti jaar dina fexe rek ba sauver Sangomar si rab bi nga xam ni moom moo ànd ak Delia loolu nag mel na ni du yomb waaye eh, dabi eh, lépp lu ko ca mënti fekk rek moom eh, pare na pour dékku ko ñu jàll ci beneen séquence Sangomar ak Delia nag gis nañu leen ñoom ñaar dem nañu lune de miel mu mel ni nag seen seen lune de miel commencé naa neex ndax ki nga xam ni moo di Sangomar wëykatam artist Delia préféré la ko indil mu daal di leen di gàttandu ci kër ga ak wëy bu neex a neex loolu nag day wone rek mbëggeel bi nga xam ni Sangomar am na ko ci délia cofeet bi mu am ci moom waaye bëgg rek bégloo ko bi nga xam ni moom la moom la nekkee euh, saa su ne mu mel ni nag li mu bëggoon am na ndax gis nañu ni Delia kontaan na euh, tey it nag euh, moom it mbëggeelam ci Sangomar feeñ na bu baax a baax ñu jàll ci Maria di yaayu Delia moom nag dafa xaw a tiit ci doomam waaye itam moo ngi ñaan yàlla ngir rek Sangomar dara bañ koo jot ndax xam na bu baax a baax lan moo mën a fekk Sangomar ci boobule mariage waaye nag li ñu naan rek xolu yaay ci doom euh, donte euh, jurul euh, ki nga xam ni moo di Sangomar waaye dëkk mu bëgganteeg doomam rek ba takku ko kon yaakaar naa day nekk rek doomam ba tax moo ngi ñaan yàlla lu mu mën rek ngir Sangomar bañ a regretter benn yoon wala mu bañ a gis dara lu koy jommal ci mariage am ñu jàll ci dabi moom nag dem na ci benn sëriñ bu am xam-xam ngir rek sauver xaritam tey nag nee na ko pare na pour lépp rek ngir rey ki nga xam ni moo di jinne Sangomar format ngir rek mu bàyyi Delia euh, sëriñ bi nag li mu ko xamal rek mooy euh, moom dabi mën naa rey jinne Sangomar euh, waaye nag ci kaw mu ñàkk ay bëtam loolu nag di lu jafe waaye nag dabi comme moo waxoon ni pare na pour lépp ngir rek rey ki nga xam ni moo di ngir jële dimbali ki nga xam ni moo di frère am ba mu mucc ci jinne Sangomar kon rek yaakaar naa loolu dina ko mën a def ñu jàll ci ki nga xam ni moo di Delia moom nag commencé naa wane jikkoom ndax bi nga xamee ni Sangomar waxtaan na ak moom comme jëkkër ak jabar li ñu war a def ne ko rek nañu ko def ki nga xam ni mooy Delia dafa mer daal di koy yuuxu daal di dal ci kawam loolu nag métti na Sangomar moom it ndax euh, gisul lan moo war a tax mu takk nit ñëw ba lindam yel mu koy xañ euh, boppam ñu jàll ci dabi moom nag li ko sëriñ bi wax comme ni ñu ko waxee sànq rek ne moom moo waxoon lépp lu lépp lu mun a tàqale euh, Sangomar ak rabu Delia bi dina ko def loolu la def ndax nee na rek dina rey jinne bi donte nag dina ñàkk ay bëtam ndax loolu la wax ki nga xam ni moo di tonton Saint-Louis Saint-Louis nag moom bëggul woon euh, loolu dabi euh, def ko waaye nag taxul euh, dabi daal di découragé ndax nee na rek kàddoom da koo jiitu ba pare ba tax nag sang Saint-Louis gis ni ki nga xam ni moo di dabi xarit dëgg la te yi nag xarit bu jafe la si jamono yii ndax jamono yi raar na ñuy gis xarit boo xam ni sa moroomu xarit dina la jaral yenn yi rawatina nag lu ci lu toll ni sacrifier say bët kon euh, dabi yaakaar naa xarit bi muy woote ci Sangomar mate na ko sëkk ñu jàll ci baron ak ma Madiaga ñoom nag dèjà ñoo ngi euh, jubilé di feete seen euh, victoire ndax jàpp nañu ni Sangomar balaa yàgg dara dina dee ndax rek dem na lune de miel ak ki nga xam ni moo di Delia ba tax nag ñoo ngi teg seen plan ngir xool nan lañ ñu koy dondee ci entreprise bi ñu jàll ci princesse Diama moom nag li mu bëgg rek mooy mooy eh, xam ki nga xam ni moo di papaam waaye yaayam eh, da ko koo bañal ndax xamal na ko ni ko sa papa boobu alal moo ko gënal doom moo ko gënal lépp lu mën di am ci àdduna waaye nag yaakaar naa dafa jot rek ki nga xam ni moo di princesse Diama daal di xam papaam ndax rek nit ku nekk eh, bëgg nga xam say waajur rawatina nag nga dem ba toll ci benn âge bi du daa nag gis nañu ko yaay Diama muy julli di ñaan yàlla waaye itam di ko jéggalu ci erreur yi nga xam ni defoon na ko tey nag di ko ñaan rek mu daal daal di euh, euh, li nga xam ni moom la ñaanaloon doomam ni ko rek doo mës a am jëkkër te mer taxoon mu def ko loolee rek yàlla jéggal ko ko comme li ñuy wax rek euh, ya mbaam wax weq na doomam waaye bañu ko loolu la ñu gis ndax keroog bi nga xamee ni Duda moo ngi ñaanal princesse Diama lu ni mel daa fekkoon rek mu mer te it nag lim ko defoon ci kanam mu ay nawle moo ko waraloon waaye benn doom benn yaay yéenewul doomam lu bon. ngi jàll ci ma jaaga moom nag gis nañu forcé benn xale bu jigéen di ko teg pression euh, ngir rek mu daal di sëy ak baron ndax Sangomar moom moo leen laajaat beneen sacrifice boo xam ni euh, virginité lay doon te xam nañu ni euh, sëy ak benn xale bu jigéen bu vierge moom moo leen ko mun a may loolu nag mu mel ni ñoom dañoo bëgg a utiliser xale bu jigéen bi daal di koy takk jël virginité ba noppi nag daal di koy sànni mu mel ni nag ñoom li ñuy wax saa su ne rek fu ñu toll xooluñu ñeneen ñi lu leen neex waye nak ñom lenn mo leen yittel té moy rek seen daraja nu mu yokko seen alal nu mu yokko ba nga xam nak position bi nga xam mom lañu am wala statut bi nga xam mom lañu am bu mu wacc waye nay gën di uh, yokku ñu jéxal ak séquence bu mujj gi ñu gis ni nak Delia li tax mu bañal uh, baña uh, def li nga xam mom la Sangomar bëgg té moy rek ñu def comme jëkkër ak jabar moy rek dafa sentir ne bis bu ko défé du neex ci ki nga xam modi di Sangomar waye nak mujjé nak nangu ndax mbëgé mbëggeelam eh, ci Sangomar eh, te it nag yaakaar naa lu ñu naan daw yàlla xam foo jëm ndax sa jëkkër moom mënoo à chaque fois rek di ko eh, repousser waaye nag li sang li Delia doon bañ moom moo am ndax bi mu ko ko nangulee jinne bi dafa ñëw ci saa si daal di dugg ci seen diggante Sangomar daal di gis ñaari Delia kenn ku tëdd ak kenn ku taxaw loolu nag jommal na ko ba tax rek mu mel ni ku xaw a tàggale kook sagoom kon bokkente no di leen topp ba xam fu waa leen di mu jëkki gëtëm waaye waaye laata boobu nag wéyal leen di abonné ci 5 TV te bu leen fàttee ba suñu cloche de notification bi ndax ngeen di jël suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf et à très bientôt incha allah.